salaamaaleykum FPCW ñu ñaan leen jàmm bu baax di nuyu mbooleem panel yëpp xam naa ci kanam tuuti sax danañ dikkaat ci taxi ci nu mu gën a yaato image yooyu ñu leen wàcceel xam ngeen ne selon Dakar Actu e, ñoom ñoo xamal xibaarub éva évasion bu Boy Djiné Modou Fall tey ji suba 5 heures du matin lañ yëg ne daw na image yi ñu wane nag e, bokk na ci image yi ñu gis ne foofu la Boy Djiné jaar. muy fenêtre boobu ñu daj yi buum googu ñu lonk donc loolu ba tey eh, xam ngeen ni ci camp ba tey eh, enquête ubbi na ci administration pénitentiaire bi pour ñu xam exactement lan mooy jëmi évasion boobu la ndax bu nu gisee léegi moom dañuy xam ne du lu kenn nit mën a boppam kaso xam ngeen am na nu mu tëddee waxuma la sax détenu yi simple yi nga xam ne danoo nekk ci waaye ñi nga xam ne crime lañ def ba eh, yóbbu leen isolement rek seen eh, sécurité day gën a assuré kon nag bu nu gisee lu mel ne buum nit mën caa jaar ak dajji fenêtre bi dañuy gis ne eh, gëwu ma ne lu benn nit man la donc ñi nga xam ne daal yoroo naan sécurité bi xam naa ne incha allah ñu ngi déglu lu mu néew néew tey ak suba waa administration pénitentiaire bi nekk ci camp pénal Euh, des na yëkkati ay kàddu ci évasion boobule bu boobaa nag des na ko jot li bu ngeen koo xam waaye ci gàttal rek am na les waxut su fekkente ni nii la mbir mi demee euh, ñu ñaan leen jàmm bu baax jox leen di daje ca kanam tuuti incha ñu wéy li des ci programme bi.